loolu la ñuy dox mais si occasion la ñu créer benn team boo xamante ne ay jeunes entrepreneurs ñoo ci nekk ay jigéen ñuy liggéey ku ne xam ne ne Sénégal léegi majeure partie des filles ñëpp ñooy liggéey ku ci nekk am nga ci loo nekk te groupe bi ñu ci nekk ñëpp ku ci nekk yaa ngi yor mooy nga yor sa boutique wala nga yor ko doxal am ay employés ko dafa am benn benn mot bu xaw a créé un peu ko woon sax comme genre PDG mais une personne parce que soo yoree sa entreprise sa groupe tuddee ko sa tur di fay impôt di fay mairie impôt yor ay nit di leen fay loolu petite entreprise nga yor ñi nga xamante ne nee nañ yaa waruñu ko woowee PDG parce que ne yorul entreprise bu mag et tout man sama bopp laa gëm man sama entreprise man man déjà man sama sama jëm rek entreprise tu comprends du coup nit yi nga yor di leen jël di leen fay ñu mat ñaati nit nga jël leen di leen fay tey ñi leen liggéeyee leen mën du ci mel ne ay livre ou soit ci yow la liggéey moo tax ñu am lu ñu lu ñu am kon loolu noonu yaa ngi créé emploi yoo xamante bi yow mi toog yaa ngi ko créé kon DG bi nekk fële loolu la mooy que dafa nekk ci bureau toog wala nangam ak nangam ñu yor nañ suñu bureau suñu bitig gi ñu yore ay millions lañu fa def investir ko di jëlee ay bagage impôt export di fay lépp kon kuy fay eh, impôt ci dëkk bi yaakaar naa ci réew mi nga bokk waruñu la soxoree PDG loolu sax man sama PDG bopp de kon loolu ñu ci wax mu mm-hmm. xam nga ñëwoon ci association bi bi ngeen commencé yàggul c'est une semaine. waaw ngeen deux seen doole dugal ci mais dégg naa aussi ministre de la femme xaw na leen jàppale. ministre ministre de la jeunesse. de la jeunesse waaw ministre de la jeunesse ak euh, comment dirais-je am na ki ñu am na nu mu ñaari ministre lañ. mais juste que dañoo dem rek benn fan ñu accueillir ñu parce que ñu bari dañuy yaakaar que ni ministère c'est pas accessible te wallaahi dañoo dem accessible suñu tellement ko waxtaan ak ñun wax ñu projet yi nga xamantene bi mo am parce que ñun on n'avait pas compris que ne lolu yépp amna et que nit yi accès euh, dinañ ci amé noonu accès mu expliquer ñu wax ñu li nga xamantene président Macky Sall moom la teg mu nekk ay action yo xamantene bi ndaw yi mën nañ ci profiter mu expliquer ñu que et tout ça et que vraiment on était vraiment content ci ci accueil bi mu accueillir et que ñu ñu ñu dégg ko aussi ñun nak ay jeunes lañu li ñu def ci suñu boutique kenn joxuñu ko kenn financé ñu aussi suñu xaalis lañu jël. financer suñu bopp defaree suñu propre emploi parce que fii ku la fi gën a ndaw mu ngi jéem a créer boppam benn affaire pour nekk ci ku ci nekk am nga sa boutique ak foo ko mënti am te ku ne xam ne location xëy di wàcc bu bëgg am loo bopp sa boutique bu matee deux ou ñu ngi fay liggéey ou quatre personnes nga leen di fay par weer bu dee kooku noonu ku mu neex nga sa bopp PDG parce que aussi yaa ngi yaa ngi liggéey yaa fuus mooy ki xaar ku ko may xaar ñu ku ñu may dañoo nekk ci dara ba dara fekk ñu ci kon kii jug di dem lu mu am ci yoon da koy jël man boog lu mu am dama koy jël te ni ñu àndal ñëpp ci biir mouvement bi ku ci nekk li nga am da koy jël parce que ku ci nekk ci li nga nekk gëm nga ko moo tax tey nga mën a ñëw intégré groupe bi parce que ay caaxaan tamit taxul ñu créé groupe bi groupe bi ku ci nekk sax am nenn looy doxalee dañ lay quitter groupe bi après ñun ñu continuer ci lu ñu nekk. PDG bi parce que a pour jàppale ñu tout ça parce que man am sama propre groupe boo xamante ne bokkul ak lii te ñoom dañoo ñëw ñu jàpp dañoo war a dañuy def suñu ndogu. mais comme tey la ma leen carrément jëleen t-shirt ngeen ñëw ñu jàppale ñu xool parce que mbooloo mooy doole et loolu lépp loo nekk danga nga ci wane sa bopp

kiiwal ñun ñoo ko liwal suñu bopp ba def ko ba taxawal ko gis ngeen ni fi def def nañ fi plus de euh, mille mille yoo xamante ne dañ ko distribuer ñu joxe ko lépp suñu xaalis bopp lañ ko defe mais pour cadre ay ministre wala lool no dañoo dem seeti leen ñu waxtaan ak ñun wax ñu projet yi nga xam ne moo am ci dëkk bi te ñun jeunes yi duñ ko yëg te financement yooyu ñun war nañ cee mën a bokk te bokk guñ te bëgg nañ ci bokk aussi parce que ay ndaw réew mu ne ñu liggéey bëgg kuñ jàppale aussi parce que xam nga tey jii comme li ma doon li ma wax tout à l'heure tey benn site internet bu ñëw couvrir sa événement war nga ko war a mën a fay comme xam nga parce que ni ku nekk ci li nga nekk ci loolu ngay gañ paa te yéen li ngeen nekk ñun ci leen si loolu lañ leen mën a joxee dara pour yen ngeen mën ci am dara moo leen ñu jël rek ñuy wax ni que seet bi ngeen di dem moo leen am benn appui bu ñu leen tegal si seen loxo ñun aussi pareillement parce que fii ku ñu ku ñu dimbal rek moo fi nekk mais ku am lépp amul. et que ku nekk ci li nga nekk soxla nga appui ku la jàppale ñun xaar ñun ñëpp la ñu xaar pour ñu ñëw ñu jàppale ñu parce que ay jigéen ñuy liggéey la ñu et que dañuy jël ay bagage bitim réew di ko indi Sénégal douane bi xale ne intégré nga leen ci sa boutique bi jël mhm. lañu yoo xamante ne bii ñu yàgg topp yaaw lañ moo bi sama boutique pourquoi pas ma jël leen di leen fay ñu may liggéeyal par weer parce que loolu noonu am na am na lenn lu muy apporter ci seen kër yi kon man loolu même bu fekke ne sax jëriñu ma dara dama koy def pour ñom ma man leena jappalé jàppale ñeneen ñi tamit kenn ku ci nekk mu ut fenn fu ma la branché nga dem liggéey pour nga mëna am dara man togaay la bañ ci jigen mais du leneen. bien sûr dañuy def événement dañuy def ay foire lepp lo xamanteni bi war nañ ko mëna def pour mu élargir suñu suñu business dinañ ko def parce que li c'est une première. te lu ndaw la ci li ñu def et bëgg nañ def loo xamante ne tamit dañ ci am dara parce que tey ñun dañoo génn ñu joxe mais bëgg nañ loo xamante bu ñu ko defee aussi daf ñuy apporter ay foires et tout ça parce na ay coiffeuses am na ay couturières ku ci nekk yaa ngi créé loo xamante ne boo ko tegee ci marché day jar kon du coup <laughs> tey dañoo yaru sans limite waxi noppi. waaw sans tamit dañoo yaru tey da ngay non non da ngay ñëw nga intégré association bi nii nii ay jigéen lañu et que ñu ngi ci nombre de vingt cinq personnes kon képp ku bëgg a bokk mën nga ñëw nga jënd carte membre nga ñëw adhéré mais ñun comme li may wax groupe bi soxla ñu ci détail gauche détail droite on veut juste parce que ku am nga beneen temps booy jël lu ay temps groupe quoi li nekk priorité mooy ñu liggéey ut lu ñu amal suñu bopp am ay fonds ku ci nekk boo yoroon boo yoroon cinq nga am dix ku nekk boo amoon dix nga am vingt et que travail bi continuer et que ku si mel ni comme tey mami ki moo nekk ki moo ubbi groupe bi intégré ci ñëpp mais ma leen def seen porte parole du coup su ma waxee man ñoom ñëpp laa waxal mënu ma lim tur nag mais vingt cinq jeunes la gis nga ay jigéen da nga fekk góor bu bëgg a ñëw aussi nga ñëw jàppale ñu nga nekk jeune entrepreneur la nga ñëw rejoindre ñu mais yaawa en tant que jeune entrepreneur ba pare yaa ngi yoox ay projet di ko doxal bëgg nga ci avancement bëgg nga ñëpp fekk si la mais ñëpp dañ lay duut baaraamtu mu ne da nga far torop ci gouvernement bi est ce que loolu après fi gouvernement bi jugee du am lu mu lay yàqal ci sa liggéey non mais far nit ku ne am nga droit nga nga bëgg ku la neexoo fe du far parce que man gouvernement fayu ma <laughs> gouvernement fayu ma sama liggéey laa yore di ko liggéey xaw ma sax Macky Sall xaw ma ko def mos ma ko def lan laa fare non du question de far nit ku nekk si senegal la comme liberté d'expression nu mu amee noonu la ku nekk amee liberté wu far ak ku la neex man groupe bi lijjantiwu ma diw Jean wala Paul ñoom seen opinion la parce que ma dugg ci groupe bi yàggul mais avant loolu sama bëgg-bëgg lu njëkk la loolu que que ay lii président mu toog fi wala mu dem fi moom nekk si si man et que loolu du du lu may lu réel la lu nekk la waaw waaw c'est ça keneen ku ñëw dinañ ànd ak yow ñun ku liggéey dañu ku la yël ànduñu ak yow ànduñu ak kenn ci ay wax wala ci ay ci ay nax saxandang mais su ma nekk baax na su ma nekk kenn a jotee nga soxna si nga may wax ni yëpp sama yoon nekk sama état bi fay ma vraiment même. gën ci mais da ngaa bëgg état bi nag foofu ñu laaj la ci yaa non mais bëgg ak loolu parce que tey jii ñun ci lu ñun ñoo ko defal suñu bopp tey sama boutique bi ma defar kenn kenn financé mën naa ko defar sama bopp ak samay propre moyen dew ma ci banque lépp dew ma fenn damaa damaa liggéey day sama xaalis ubbi sama boutique du gouvernement du kenn moo ko defal mais dama ne ñun bu amee appui ku ñu dimbale dañuy jël ku mënti doon est-ce que tey jii am ne pour xeex ak jigéen ay jigéen lañ ak ak yelleef ku nekk ku nekk bëgg nga ko liberté ku nekk bëgg nga ko tey 10 heures la ñu woon dem campagne après on nous a dit que ni mënul nekk parce que dafa am conférence bu fa am dañ koy defaat ba le 14.